N.S.S. c'est pour la région de Thiès, c'est pour la jeunesse thiessoise. Parce que Ibrahima Macodou Fall, bu ko neexoon mu dem a nelaw mais la jeunesse thiessoise bëgg Thiès avance, moo tax mu teg ci lii ci tànkam bëgg mu avancé ba léegi. on s'attendait à ce que ñu ñëw wax ci chemin de fer démarré mais pas tali Yoko yokk nañ yaakaar gu tas la parce que tam président bi mu ñëwee ci conseil des ministres décentralisé bi mu duggee Thiès daf ne du ma romb NSS donc dina fa jaar xam lan moo fa xew bi mu duggee tam gis na la fa xew ensuite tamit relancé na ko relance bu njëkk bi ñëpp xam nañu yàggul parce que au bout de deux ans trois ans lañ doon commencé dafa dafa taxaw kon nag loolu yëpp nag mu nekk loo xam ne gàllankoor la tas yaakaar la ci ñi nga xamante ne ñoo fa doon liggéey toogoon fukki at ak juróom liggéey ba doxatul woon kon tey autorité yi nga xam ne dañoo ñëwoon dugg ci biir usine ba. waxtaan ak nit ñi wax ni fii lu mën a dox la moom it mu def ay effort yu yu doy waar moom la DG parce que tamit boo xoolee ci biir machine yi fay dugal machine yoo xam ne ay milliards lay jar nekk ci biir usine bi mën a dox doxul te li ko teree dox kenn xamul lu mu doon ndax it état am na lu mu redevable redevable ci

nga xam ne ni Thiès laay relancé NSC dama koy relancé ñu toog ba léegi cees lépp dee dëgg la euh, euh, tali yi baax na lépp baax na mais nit ñi tamit am xëy lu am solo la ci nit honneur nit ma def naa mooy xëy tey sa NSC bu tëjee chemin de fer cees Thiès lan moo fi nekk defari tali nit ñi di taxawaalu xanaa moo fi nekk taxawaalu ci tali nag taxu ñoo jóg liggéey mooy nit ñi xale yi am fu nu mën a xëy di fa liggéey tay jeunesse biñ trois ans mais ay centaines de jeunes lañ c'est des milliers de demandes kon donc nga kon donc war nañ ci ci solo la nañuy nit ñi social parce que nit ku nek bo xey sa nekkin lolu d'abord di nek ay ay promenade tout mais nañ fexé ba nit ñi am ay xey ci dox ñu ñëw wax ni ñun attente bi yàgg na congé prolongé depuis trois ans nek dans la dèche dafa metti lu ñuy drame la bu ñuy dund lool nak il faut que président xam ko xam ni instruction yi muy joxe bu koy am nañu koy exécuté am nañu koy bloqué mu xam ni donc affaire bi agul fa mu war ag àgg kër gaa ngi nii tëj machine yi bees ya nga yoo xam ne kenn taa ko ña nga fa ñu duggal ci biir ñu dox donc loolu lañu ñu yaakaar ni yoon bu ñu ñëwee fii ci yoy la waxtaan duñu waxtaan ci leneen waaw lool nak motax tay ñun ñu tok mobiliser wu ñun travailler à partir de maintenant dañuy mbir dañ ci jël suñu bop suñu xeex dañ ko jël suñu bop parce que tamit mbir bi moy ne que le privé le secteur privé mais on a besoin de l'appui de l'État état waaw état war nañ ñëw secourir ñu jappalé ñu tok bi yàgg na muñ gi yàgg na nit ñi ñu ngi ci mbedd yi